salaam salaam غدا فزار mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu daara jii di daaray makaarimul axlaaq boobu cheikh abdul karim mbakke ibnu cheikh mohamadul fadal di jiital ci nuyoo bi nag kilifa ak yoonu murit cheikh mohamadul muntaqa tane cell ndax jataay bi yeyoo na lépp ñu teewalu fii ndax kàddu suñu borom la ñu yëkkati te Sëriñ Tuubaa suñu royukaay ba de moom waxuma la alquran waaye am mbindam képp daawuñ ko yëkkati muy wax te dal na ko tere te moonu wax ne ñu bépp xam-xam bu am njariñ ci alquran la jóge war ma duñ jox xasida yi ba di ko déglu war ma ju ko ëpp sëriñ bi nee na dañ ko jox alquran ak jataay kon nañ bokk teewul te tout tànk yooyu ci nañ ko mën a waxee tout tànk yooyu toll ci juróom-ñett mokkale alquran fii ci daara yi makaarim al axlaaq bu Cheikh Abdul Karim danañ tàmbali di leen déglu ku nekk ci ñoom dina ñëw tooyal sunu xool ci téereb yàlla bi bégal lu

wattu tere yàlla ndamu tami yow mi wattu tere yàlla texe fi ak fa ñu jëm dund ak weer ak gudd fan moom lañ lay ñaanal na ñepp ne amin man de bëgg naa la damutani yow mi yow mi wattu tere yàlla ñi ngi siyaare mboolem jullit ñépp rek di leen ndokkeel ci weer wu tedd bii di safarul xayri waaye rawatina nag njabootu cheikhul xadim radiallahu anhu di ci jiital borom passeef bi ak mbekk ni bi ak cheikh mouhamadul muntaka yàlla sunu borom dolli ko kulla ñun taxa yàlla fi yàgg lool te wér di siyaare itam suñu abul baraka moom Cheikh Mamadou Fadal di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi mu ànd ak wér ba yàlla sunu borom àggale yéeneem yépp ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci keppaar Cheikh Mamadou Fadal di siyaare bu baax na suñu Abdul Karim borom makaarimal axlaaq ba mu ñëwee fekkoon na dëgg la fonkoon nañu alxuraan waaye bari na ci ñoo xam ne ci jamono ji nag dañu doon euh, dugal ci alxuraan lu ci bokkut ak di ko fooye ak di ko sàggane di ci dugal yoo xam ne ay taasu ak i way ak it ku ñu bëgg a ku ñu gërëm bëgg laa tagg ñu jaarale ko ca waaye koo xam ne mere nan la itam buñ la bëggee ŋàññ wala ñu xas la ci alxuraan la ñuy jaare di ca defaale ay yoo xam ne dafay mel ne dañ la ca gaaruwaale di la ca xas ba ñamanoon alxuraan jamono yooyu ñu daan leen tudde ay kàng dañ leen daa ràññee ci loolu ba tax ñu daa ci am ay alal yu baree bari daa ngi gis koo xam ne sax day jël alxuraan jege noo ko suñ ko waxee mu ne loolu du dara ndax alxuraan ci kaw alxuraan la maanaam nee na moom boppam di alxuraan ci nekk kon mën naa ko njegenu ci kaw alxuraanu yi kon loolu ñàkk xam la woon Serigne Touba bi mu gisee yooyu ak yu bari mu xam ne kat bu ñu bëggee yeesal sunna Yonent bi sallallahu alayhi bëgg defar doomu aadama fan ko war a jaar mooy ca xol ba ca loola mooy leeru alquraanu karim moo tax nag mu jël alquraanu karim def ko muy léppam nee na ca la dëkkaale boroomam moo tax mu ne jaawatu bi furqaani rabbiyal mu'in malatu nafsi wa zasaatu layin mu daa jël alquraanu karim nag tàmbali di ko jàngale moom ci boppam waaye di santaane ñu di ko jàngale samp ay daara ku mel ne si ndaam Abdourahman Lo ay njabootam ñu bari ci ay loxoom la ñu jaar radiyallahu anhu ak yeneen i kàngam yoo xam ne ñoom ñëpp. ci ndigalu sëriñ tubaa ci la ñu doon jàngale alxuraan yemu ca waaye mu daa jël njabootu boppam ñoom ñëpp muy sëriñ si tedd si ak soxna ya ñoom ñëpp mu sóob leen ca daara ngir ñu jàng alxuraan ba ñoom ñëpp ñu mujj doon ay kaang doon ay fóore waaye bind ay kaamil alxuraanu karim boo ci joxee misaal rek ku mel ne soxna Maymuna al Kubra radiyallahu anha ku ne xam ne kaamilam bu siiw boobee bi mu ko bindalee kaamil ba noppi sëriñ bi daf koo liggéeyloo am na ñu ne cere la am ñu ne léeg ñu tuddee ko sax baraay waaye liggéeyloo na ko daal loo xam ne day màcc jëm ci aw ñam woo xam ne day wane ak xariñam ci liggéeyu kër bi liggéeyee loolu ba noppi boole kaamil ba Serigne tubaa dafa daal di santaat yàlla bu baax daane amoon na kenn day ci naar yi koo xam ne daf ma andiloon kaamil alxuraan boo xam ne doomam ji jigéen moo ko bind ndaxam moos ma bëggoon loolu ci sama njaboot gi lool waaye loolu ma ca bëggoon day tey jii yow may munatu defal nga ma ko waaye def nga sax ba def loo xam ne naar ba mënu ko ca mooy liggéey gii nga liggéeyal xéewal gii nga xam ne jëm na ci liggéeyu kër kon dañ leen daa formé ca daara ja ba ñoom bu ñu noppee ñooy man ci daara ji waaye ñooy man ci kër gi moo tax day firndeel Serigne Touba ni ñu daa sonne ci euh, jàngal góor ñi alxuraan noonu la daa soññee te ci jàngal jigéen ñi àggoon na ci foo xam ne ku masaana dikk di ko jébbal sa doom la muy njëkk a wax mooy nu mu def ak téere bi yàlla bi nu mu def ak téere bi sax ñaari su ko waxee rek alxuraan di ci jublu suñu ko ah moom day jot na ko wat mu door ko sóob nag ci wàllu jàng xam-xam ak ci wàllu tarbiya su ne ko ah toll na ci jàng de waaye des na mu ne ko demal fa nga doon jànge ba àggale téere bi soo noppee boo dikkee foo ma fekk fu ma nekk nga fekk ma fa kon dafa mel ne fonkoon ne alxuraanu karim waaye fonkoon na alxuraanu karim itam ba nga xam ne ni mu daa sonne ci góor ñi ñu jàng ko noonu daa diggale jigéen ñi am na ko ma sa ñëw ci moom mu di ko laaj doomam jum ko masoon a jox mu di ko muy ziar ci mu di ko ko laaj mu ne ko moom day mbàkke bu doonoon góor ma ne war naa toll fu mu war a jàng alxuraan sëñ bi ne ko bu doon ji bu doon bu doon bu doon bu doon jigéen nag nga xam ne kon da koy wan ne bu dee góor bu doon jigéen ñëpp war a jàng alxuraan Sëriñ Tuubaa dinaa wax naan am xel day mu mën a jàpp dara ñu def ca lenn lu dul alxuraanu karim dara jaru ko ci àdduna dara jaru ko ci alaaxira alxuraan nag moo ko daa wétti moom Sëriñ Tuubaa mu samp ay daar yu bari nag daal di tàmbali def ay daaree kaamil fu mu nekk samp na fa ñoo xam ne ñoo jàng alxuraanu karim di ko ko jàngal suba ak ngoon moo xam ca gànnaar moo xam ca céyeen ba ca njaareem liggéey boobu sax ba léegi njabootam yi ñu koy wéyal ca njaareem ak ci fii Touba Touba ñooñu nga xam ne ñoo ko daal féete ca alxuraan ñoom la Serigne Touba jàppe woon waa këram moo tax da leen yore leen seen lépp fonk leen lool jox leen yitte lool. bu baax nuyu bu tedd boo xam ne dañ ciy jiital suñu sang ba Cheikh mun Mountakha wàcc ci suñu sang suñu sëriñ suñu bàyyi si ñëwul baraka. waaye di nuyu borom keppaar gu tëdd gi suñu sang suñu baay Cheikh Abdul Karim borom makarim al axlaaq di ko ñaanal sama borom dolli ko tawféex dolli ko ndimbal bi barkeb Sëriñ Tuubaa waaye di siyaar bu baax suñu sëriñ su tedd sii nga xam ne ñoo teew jotaay bi Cheikh Mamadou Xaban ak sëriñ Aliou mboolem ku fi teew rek incha allahu taala dañuy daal di dugg ci liggéey bi. nga xam ne moo tax bi bis bi jub jotaay bi jotaay yóbbu alquran la te gone yi dañ ko jagleel lépp loo xam ne ni luñ ci waxaat la rek ay ndolleen la ca waaye li tax jub jotaay bi jub moom mooy gone yi toog dégtal nu ay alquranul karim ñu barkeelu ci mën a am toofeex kon ci liggéey boobu yi la ñu daal di rek ca nam gën a gaawe incha allahu taala شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن sa ربهم بلى وهو الخلاق العليم بسم الله بك borom Tuuba ba tey lii bokk na ci tombi borom Tuuba yu am solo yim daan tom Sëriñ Tuuba bis wax na ne juróom ñeent a ngi nii yoo xam ne bu ci julli yépp saxee danañu mucc àdduna mucc àllaaxira ba ca njëkk mooy ragal yàlla wataniku ku ragalul yàlla war ma ku ragal yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku loo xamul bul loo mënul bul loo moomul maanu ca looli waxi borom Tuuba la yan nañu ko yàlla doole fayal te defal ñu dégg ak وسلم بسم الله بركب برم توبا لبقنة وقبرم توبا يمدان وح تم أم صلالار سرين توبا مسنا tomb ñetti tomb tomb bu njëkk ba mu teg ca loxo mu tedd ba daa di ne li ma ko def topp bu ñaareel ba mu teg ca loxoom bu tedd ba daa li ma tudd a def bu ñetteel ba mu teg ca loxoom bu tedd ba daa li ëpp a def si waat ca tomb bu njëkk ba daa di ne li mat a def mooy la yàlla digal ndax moo lay may ngërëmam la dàqal meram la jariñ bii la jariñ fa nga jëm mu teg ca beneen ba daa di ne li ma du la def mooy ko ndax du la may dara te du la musal ci dara bu mujj ba mu ne de ab fa def ka xam ne bu ko sa xel xalaat mooy mooy yàlla li wax borom Tuubaa la yal nañ ko yàlla fayal te defal mu dégg ak topp wasalaam laa barke borom tuuba lii bokk na ci tomb borom tuuba yaam su la daan tomb sëriñ tuuba daana wax ne dëgg du du xuloo day mën ba am bëgg daana wax ne ndigal ku soo jugee rek dabe daana wax ne ndigal lëndamuk fajar la loo gën a dem mu gën a leer ba leer nañ ni lu dul ndigal nag leeruk timis la loo gën a dem mu gën a lëndam ba lëndam kariis loolu waxi borom tuubaa la yàlla na ni ko yàlla dolle fayal te dafa ñu dégg ak topp asalaamaaleykum asalaamualeykum wa rahmatullah bismillah barkeb borom tuuba lii bokk na ci waxi borom tuuba yi mu daan wax te mu am solo lool sëriñ tuuba daana wax ne nit ki ñett xaaj rekk la làmmiñ wi ak xol bi ak li des ci cër yi làmmiñ wi am na dëkk bu mu war a dëkk am na it dund wu mu fa war a dund daa di dëkk bi làmmañ wi war a dëkk mooy zikrullah te mooy tudd yàlla dund ba mu fa war a dundee mooy xawlul xayri te mooy wax aw yiiw daa di xol bi am na dëkk bu mu dëkk mooy tawxiid te mooy wéetal yàlla ana dund ba mu fay dundee mooy niyatul xayri te mooy yéene lu baax lu ci ne bu ko waxee ba noppi da ciy teg ne bu saxee ci dëkkam bi di dund ci dundam bi du tumuranke taddu yooyu daa di ne di des ci cër yi ana luy seenub dëkk mooy fi'lul xayri te mooy jëf lu baax luy seenub dund mooy alwaajib wal manduubu wal mu baax te mooy li war ak lu ñu sopp alini dakanal daldi ne bu ñu saxee ci seen dëkk bi dund ci seen dund bi duñu tumuranke te duñu yooy mu teg ca ne boo saxee ci wax aw yiw ku la mën a bañ dana la mujj bëgg boo saxee ci yéene aw yiw ku la mën a ŋàññi dana la mujj tagg boo saxee ci jëf aw yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral lii waxi borom tuuba la yal nañ ko yàlla dollee fayal te defal ñu dégg ak topp amin aaxee ñu gën na ko rekk fay ko baru min ay way ñan di tilim ay jabam mu nekk keeb ju nit mën a ay kayit li zanni way sudul يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والطور وكي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فآوى si woy sang bu baax ci zaahir ak bismil ilaa ma del si woy sang bu baax ci zaahir ak baatin di cheikh abdul karim ma tàmbalee fam doore tey ba dib sëriñ toogul di noos ba ñëpp ñëw ci sëñ karim ca bam matee dem daara rekk la jàngi woon mokkal na am shahaada cheikh abdul karim bindi na yit roy na ca baay ba fàllilu te fum mu bindee sa di bég ci sëñ Karim jàng na ay xam-xam yu wér te barke kon shariatoog xaqiqatoo di sëñ Karim yar na cëram ak ruuga roy cheikh Ibra nangul na yu baax ya cheikh Abdul Karim yaa am yërmaande am yitte ju rëy yaa yeewu kon yaa fusdu cheikh abdul karim yaa saf sëriñ fallu ma saf bamba yaa saf borom arash de cheikh abdul karim yaa yaatu am yërmaande am yitte ju yaa yeewu kon yaa fusdu cheikh abdul karim yaa saf sëriñ fallu ma saf bamba yaa saf borom arash de cheikh abdul karim yow làqu woo te lëndëmoo bëggoo lu bon xeeboo faqiir nawoo ko am di sëñ ndax yaa defar ña mel ne manta ta sànk woon daa tux di naan di sàcc cheikh abdul karim yaa sellu jub am sutura yërmaande tey ku jàq ñëw seet si la cheikh abdul karim makaarimul axlaaqi moo di say jikko ci zaahir ak baatin ba cheikh abdul karim yow jox nga cër sa mag yi ak rakk yile waa réew mi tey naw nañ la cheikh abdul karim qaadir murid tiijaan yi ak laayeen yile ak chrétien ñépp ay ziyaar ci sëñ karim qaadir murid tiijaan yi ak laayeen yile ak chrétien ñépp ay ziyaar ci sëñ karim yow réeraloo kenn billaahi sànke woo ku sosal daa réera cheikh abdul karim yow xeebu te ñaawuloo ñàkkoo xorom te ngottuloo yaatabe cheikh abdul karim am xol bu set ak xel mu jub sellu doxiin sax ci liggéeyal bamba cheikh abdul karim salli ala sayidina muhammadin wa alihi bi jaahi cheikh abdul karim wa alihi bi jaahi abdul karim ci turu sunu kilifa gi nekk ci biir muy cheikh abdul karim ak ci turu boppam gi di sëñ Moodu Xabaan di nuyu mbooloo mépp nuyoo bu gën a tedd di leen ndokkeel ci bis bi ñu daje fii ci liñu fi dajale ndax nee na ki doon jàng bayt yeeg li ko waxee léegi rek mooy kitaabun bihi narju min allahi rahmatan kon nag ndaje mii ñu dajoon fii di jàng téereb yàlla bi ba mokkal ko kenn deful ci dëkk bi dara lu réye nii am ndaje mën na ne toll waaye mënu koo raw kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ndokkeel ñépp di ndokkeel sunu bopp ndax liggéey bu réy bii ñu liggéeyal sëñ Tuubaa di jël doomi jullit yi ndaw ñi di def ci ñoom alquran di ko def ci ñoom muy njëkk ci ñoom ba lu ñëwati rek ci kawam lay jëm rek waaye moom jiitu na ba noppi te Serigne Touba wax na ni jàngal jullit yi téere yàlla bi doomi jullit yi nee na loolu day fay mberum yàlla kon nag yéen day def ngeen lu ko jar mu ngi ndokkeel ñépp ci turu sëriñ bi nee lépp lu ñuy def rek ñoo ko bokk nee na bu sax ñoo ko daan bokk di ko nuróole sëñ bi di ko wutal di ko nuróole li fi sëñ bi nekk lépp ñoom ñaar muus ñoo tàggoo ginnaaw bu sëñ bi làqoo ci suñuy bëtit ñu nekk bokk nekk fii ci dëkk bi maag moom moom mu toog fi man demoon naa génn bitim réew nekk fa tuuti ma dem taxawaalu ji waaye moom mi ngi foon bi kon nag bokk gi ñu dajawaat fii bëgg na ci lool nee na mi ngi sant soxna Mbeen Mbakke bu baax ndax soxna Mbeen kat sigil na waajuram mboolem kuy waajuram rek sigil na ko ak yoon wépp nag ndax wolof yi dañ naan mbuus deful lu gën pepp bokk ci Cheikh Mahamadul Fadal di jigéen samp daara mokk ñu fay mokkale alxuraan nee na xam nga ni ki mujjee jàng léegi jëmm ji xaw naa tuuti lool muy sëñ loo waaye yow de siggi nga siggilaale sa mbokk yépp ndax lépp moom paaba ndax jigéen de borom këram ay léppam kon Pape mar sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax daal sëñ bi daal nee na ci gàttal daal mi ngi sant ñépp mi ngi santit ajaratu soxna Sodo xumma mi nga xam ni ak caane si mi nga xam ni danga leen a dara jaale mu ni loolu nga def lu baax la ndax soxna saane si ak soxna Soda nga dara jaale leen ci cëral leen ci bis bi ah di ñaanal ki nga xam ni mooy soxna caane mi nga xam ni jiitu na ca fekku fa ci jëfam nekkoon ci liggéey bi daara ji nee na fa mu tëdd yàlla ko yàlla dolli yërmande fekk daara jaa ngi taxaw luñ fi def yal na ko ci yàlla tibbal wàllam ñun ñii fi nekk nag mu bàyyi nu fi ba ca kanam ah moom day nee na mi ngi daanee la kàddoom daal ci seen sëriñ bi bu baax baax a baax mu Cheikh Abdou Karim ndax mu ni ku nekk ci diggante laa biir Cheikh Mouhamad al Fadal ak defar maam Thierno Birahi nee na kooku day dañ koy ñaanal yàlla yàgg waaye yow ci diggante maam Cheikh Rafal ak sëñ Fallou kon nag lii daal moom jannataani la alhamdulilahi rabbil alamin nan nañ sëñ aboo mu jot cant yëpp sëñ aboo sëñ bi nee na mbooleem lu desoon ci cant yëpp na nga ko mottali yëpp rek kon nag nee na yow it ñu ngi lay sant bu baax a baax ñu seqal yëpp rek ak mbooleem ñi nga seqal jotaay bi yëpp rek nee na nga jot lu ko ñëpp rek kon wax leen amin nañ talal talal leen loxo yi ci wax amin amin amiin amiin